tàllal leen loxoy inna alhamdulillah nacmaduhu wa nastacinuhu wa nastagfiruhu wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati acmalina man yahdihi llah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد على من قال بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وقال ايضا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اعني سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal xaq di leen ñaanal yiw di sàkku seen ñaan di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boole yiw àdduna ak yiw àllaaxira dikkat nañu fi ak yéen di def ak yéen seen émission bu mag boobu seen émission bu rëy boobu muy ma sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi tey nag ñu bëggoon waxtaan ak yéen ci benn zikr boo xam ne macha allah tabaarakallah yàllaa ko digle yéen ci yàlla Muhammad digle ko sallallahu alayhi wa sallam muy baat boo xam ne di zikr boo xam ne boo ko jàppee wax dëgg yàlla di nga am àddina bu baax di am àddina bu rafet ak àllaaxira bu yàlla gërëm baat bi lan la muy astaghfirullah ñu bëggoon leen wax ngëneelu astaghfirullah astaghfirullah tabaarakallah yàlla ko digle jox ko seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam xam nga baatu astaghfirullah astaghfirullah baatu astaghfirullah yàlla moo ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam du leen mbugal mukk fekk yow rasulillahi yaa ngi seen biir mu mel ni dañu laat yàlla waa léegi bu ñu gisatul seydina muhammad nu ñuy def yàlla ne bu ngeen gisatul rasulillahi ngeen wax astaghfirullah ma kaanu yuazibuhum wa anta fihim ma kaana allahu muazibuhum wa hum yastaghfirun ma kaana allahu yuazibuhum wa anta fihim yàlla nee na sunu boroom a ngi xamle du ma leen mbugal mukk mukk fekk yow rasulillahi yaa ngi seen biir waaye boo rasulillahi fàddoo gisatunu sayyidina muhammad ngeen jàpp ci astaghfirullah mu remplacer gis ban daan gis bay Fatimatu bintu Rasul ndax yàlla bañ ñoo mbugal astaghfirullah nag ay araf la araf bu ci ne na ngay wax tur yàlla liif la siin tatombe ak xëyin ak faa ak raa ak ismullahi la xadara alif gu njëkk gi mooy allahu allahu siin gi mooy sattaaru yàlla luy suturaal kuy def astaghfirullah yàlla def luy suturaal kuy zikr astaghfirullah yàlla def luy suturaal taa gi mooy tawwaabu yàlla mi nga xamante ni mooy mooy bu tuub kuy zikr astaghfirullah say tuub yëpp yàlla da koy nangu ndax gaafiru zan bi bokkul ak xaabiru bi faa gi astag xëy mooy xafaaru xam nga tawaabu bokkul ak xafaaru ak gaafiru zan bi bokkul ak bi xafaaru mooy ki nga xamante ni mooy jéggalaakoon bi jéggalaakoon bi yàlla rekk mën a jéggal yàlla rekk mën na jéggale faa gi mooy fattaaxu mooy yàlla mi joxe ndam yàlla mi ibbiwaate yàlla mi musalaate ci umu raa gi mooy razaqu mooy yàlla miy wërsëgal kon araf yii ñu siq astaghfirullah xoole kii suturaal suturaal kii nangu tuub kii jéggale bàkkaar yi ak ki nga xamante ni mooy joxe ndam ak ki nga xamante ni mooy wërsëgal ba pare nag ismullahi lazam bi ñëw astaghfirullah muy maa ngi jéggalu yàlla subhanahu wa lim bi nag adat nañ ko 1947 la boo ko mënee def ko boo ko mënee defal 313 par bés boo ko mënee defal 114 par bés boo ko mënee defal vingt cinq par bés Seydina Muhammad aleyhi salaatu wasalaam ku baax ki daan na wax bés bu yàlla sàkk daan naa def man Seydina Muhammad téeméer yoon astaghfirullah te amul bàkkaar gannaaw moom moo ko daan def masa ñun kon ñun lañ moo ñu war bunu mënee def junni def ko gannaaw ñun dañuy bàkkaar te Moustapha mu dul bàkkaar moom nee na bés bu yàlla sàkk mu def téeméer yoon astaghfirullah am na benn riwaaye bu dikk ci juróom-ñaar fukki yoon astaghfirullah kon ñun ñuy def bàkkaar ñaata la ñu war a def maanaam ay junni junni ñu bare buñ ko mënee bismillah dafa amoon ku ñëw ci Seydina Muhammad aleyhi salaatu wa salaam ne ko dama bëgg doom sëy naa nangami at aw ma doom am kenn ku ñëw ci Seydina Muhammad aleyhi salaatu wa salaam ne ko yaa rasulallah dama ñàkk dama bëgg xéewal dama bëgg alal koom-koom rasulallah ne ko aleyka bi istigfaar demal nga defi astagfirullah allahu akbar beneen waaye ñëwaat ci seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam ne ko dañoo am bekkoor bekkoor asamaan si tawul ñax mi saxul légumes yi fruits dara saxul meññeet bi dara saxul bu tawul meññeet du mën a am tawul sallallahu alayhi wa aleyka bi istigfar allahu akbar mu nekk un couteau à multiples tranchants allahu akbar xajaratun bi darbatayni nga sànni benn sànni benn sànni nga jam ci ñetti picc benn sànni rek ñetti picc ñu toog tuuti ay jamono kenn ku ne nga am satisfaction ca la la Seydina Muhammad waxoon aleyhi salaatu wasalaam ki amul doom am doom ndax astaghfirullah bi ñu doon def ki ñàkkoon suñu borom jox ko xéewal xéewal gane si ci moom ndax astaghfirullah ki nga xamante ni dëkkam tawul woon benn meññent saxul nit ñi lekkuñu bàyyi may lekkuñu ndeysaan taw commencé di fa wàcc te taw xéewal la meññeent yépp sax allahu akbar kenn ku ne sa aajo faju kenn ku ne sa soxla faju alquran addu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaaraa yursili sama aleykum midraara wa yumditkum bi amwaalin wa banina allahu akbar alquran a ngoog astaghfiru rabbakum alquran nee na jéggalu leen seen borom jéggalu leen seen borom innahu kaana ghafaara xola innahu kaana ghafaara yàlla subhanahu wa taala sa kamal mooy ki nga xamante ni mooy nangu tuub mooy nangu njëggal moom yàlla subhanahu wa taala kenn du nangu njëggal ko mu boo ko defee nag yursili sama yursili sama aleykum midrara aay baa ngi noonu yursili sama bu ngeen jégalu seen borom ñu ne yàlla luy xew mu ne aleykum midrara allahu akbar taw dana wàcc ca asamaan ca niir yi wa yumditkum bi amwaalin allahu akbar bu ko defee bu taw wàccee ci astaxfirullah dana leen mëdd dana leen mëdd ci alal jox leen alal ñun di ko bi am waali allahu akbar dana leen jox alal bu ngeen di def astaghfirullah muy ka rasul ka bëggoon alal sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko defal astaghfirullah alal gën si ñoom wa baniina du ci yem dalay jox doom ku bëgg doom astaghfirullah dala koy jox moo tax gaañu dema dem dema dema dem dem dem dem ba sëy nga jàpp ne amoo doom saxal ci astaghfirullah boo jàppee ne amoo doom munoo amoo doom munoo am doom billahi boo jàppee ci astaghfirullah nga gëm ko gëm ko di ko def suñu boom dana la jox doom boo xasee ba ñàkk actuellement la crise elle est mondiale ñu ñàkk nañu yoratuñu alal yoratuñu xaalis tabarakallah ñàkk boobu ñàkk macha allah tabarakallah li ko mën a li ko li ko li ko li ko mën a dajal li ko fi mën a dindi moo ñuy def astaxfirullah bu tawul ñëpp bu nu booloo woon bu nu booloo woon daje ci benn pénc bu yaatu bu tawee bu tawul bu ñu toogee bu defee astaxfirullah su ma mën a wàcce laa macha ku bëgg sa àddina rafet sa àddina baax defal astaxfirullah ku bëgg ëllëg am alaxira bu yàlla gërëm defal astaxfirullah kon astaxfirullah bi noonu yal nañu ko yàlla yombalal te buñ ko defee yàlla ko suñu borom nangu parce que astaxfirullah mu jéggalu te jéggalu ku rëy mënu ko ku rëy mënu ko danag ko mën tawaadaa rafaahullah ku wàccee sa bopp suñu borom yëkkati la boo naan jéggal ma rek jéggal ma xam nga ni yàlla subhanahu wa taala azza kamal moo lay jéggal te xam nga ni tooñ nga te boo reconnaître ne tooñ nga rek boobu réyatuloo te suñu borom subhanahu wa taala fekkente ni réyuloo rek suñu borom dina mën jëflante ak yow seen émission bi noonu maa sopp rasulilah waxtu def nañu ñoo ngi jéggalu ñëpp ñoo ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq seen émission maa sopp rasulilah seen site bu mag boobu fkr 92 point com asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu. gotta